waaw li ma ci jàpp sax mooy euh, diaspora ci boppam bul fàttali ne Macky mu njëkk a la quinzième région. kooku mi ngi ko dooree ci yoonu yokkute bi nga xam ni moo doon suñu teen bi nga xam ci ñuy rootee bay roose bu jox ñu ay PSE programme président Macky Sall bi mu def à tous les niveaux maanaam ci biir Sénégal à l'extérieur diaspora ci boppam. Mhm. yaakaar naa ni mais bu ñu amee bettel président la war a doon parce que gisuma lu war a mën a tax coono ñu amoon yëpp. ci affaire passeport ci affaire déplacement projet yi fi def muy fees bu ñu fi mën ñëw ñibbi si liggéey yëpp mhm. waxuma loolu mais passeport pour nga pour mën ko am dafa jafe yooyu yëpp mu def ko jël loo mën a xalaat jël ay nit ci ñoom kon tey bu ñëwee ba taxaw loolu kay affaire loolu kay affaire saay saay te ba jógee la leen ma jàng naa toog ñaari at yàlla lu ñaan rek luy raam ci ñag ba la jëm vous voyez venir mais ñooñu ko gis ñëpp. nañ ko wax te ba dañ ko wax bañ man bëgguma ñuy ragal di tourner autour du pot. Mhm. ñooñu ko def lan moo ko waral dañu pourquoi ñu jàpp Ousmane Sonko. Ousmane Sonko oui. il se réclame du partisan Ousmane Sonko waxatuma nag ñi nga xam ne tamit. ñoom ci seen loxo mi ngi ci mooy ñi nga xam ne ñooy nekk di saaga sëriñ ci te loolu daal di jub si. mais avant avant loolu attaqué Macky Sall de saccage consulat yi ak ambassade yi euh, ñu bëri dañu ragal moom conséquence ëllëg ci vote bi nga xam ne war na am euh, dans dans dans mois. mais man président keroog bi mbir mi amee. mooy premier juin ma ne CPMA sax dañ ko taal lakk ko mais man loolu su dul ay détails laa ko def. non ay détails c'est grave. waaw waaw mais mais gardien mm-hmm. bi fa ne woon bi ñu ko fekkoon. Mm-hmm. ba feebar ba léegi lépp la taal ay bouteilles col moom itam ba ko président léegi man keroog bi ma jógee foofu man nag kon waa Afrique du parlement par li ma doon wax kon gis naa ko. Sénégal Afrique ni mu tolloo léegi Sénégal moo suñu dernier rempart. parce que mm-hmm. seen forces armées. seen force de défense partout ñoom ñooy ñoom ñooy briller mais comme que am na mooy ko président. maa ko bind message du ma ko mhm. nëbb mhm. président da bëgg a jóg wax à la nation ne léegi ay terroristes yi nga force économique ñoom laa amal affaire léegi nag yàq yi ñuy yàq di lakk ay université di yàq li fi nekk yëpp léegi dana laa def la guerre comme ni France defee guerre ak action directe Italie defoon ko brigade rouge Allemagne defoon ko pratiquement euh, la bande ba Bader États-Unis defoon ko al man ko léegi day wax ne carrément que léegi. parce que organisation terroriste la. Ah, kooku bi ma ko waxee yàgg na.